coalition bi yóbbu woon euh, Diomaye Bassirou jamaay fay président de la République tabb ko ñu dem élection législative njiitu parti PASTEF wo coalition bi xamal leen ne PASTEF dafa décider au lieu muy dem ak coalition jamaay waye ko PASTEF lay lay démé lool nak amna na lu mu indi ci biir coalition bi déjà amna ñu si commencé génn mën nañ tudd ko mel ne Charles de Ciss Euh, ku mel ne tam Maître Moussa Diop génn na ne mu dafay def coalition boppam donc loolu lañ bëgg d' abord euh, sa jàngat naka nga koy jàngate coalition bi yóbbu président après ñu baxo fa jël bannière parti pour dem ci élection législative. waaw Fallou maa kër gi nuyu directeur général Moussa. li wax ne problème mu coalition mu bindoo. Hmm. dafay mel ni natt. natt. xam nga ci quartier bi walla ci gox bi wala ci école bi dina am natt. Hmm. weer bu nekk ku nekk joxe nangam mu teggil kenn. Hmm. coalition bi noonu lay demee bu natt bi fëggee rek. dañuy tasaat dina am ñu dugg wala mu yokk wala mu wàññeeku. yenn saa yi si moo am ñoo xam dañuy dem ba ci digg mënatuñu fay ñu bàyyi ñu xaar leen bu ñu seen mën sedd leen. Mm. en tout cas man natt yi ma gis ko daax organisé. Mm. nga xam ne du manqué am na benn spécialiste en natt bu xam. Mm. boo xam ne bii loolu mooy métier xam naa bu ma déggee dina ma comprendre. <laughs> bien. donc noonu la natt yi demee. noonu lay doxee. Mm-hmm. alors coalition Diomaye xam nga ni mu bindoo.

parti nag boo ci bokkee wala groupement bokk té bokkatoo ci monté bon dañ koy tëralin benen tëralin bo xal ne doon sa tëralin président Diomaye dafa xëy ne bokkatul Pastef foog ñu jël ko en compte li ko tegoon foofu ba ñu def ko président de la république te président de la république fi nekk yëpp hmm. nekk ay chef de parti hmm donc exception la boo xam bi kooku dafa war a dañ loolu tax mu ñu Sonko le second de celui qui a été son second très bien donc loolu moo tax am donc da ngay jàpp ne mhm. alin am mais situation bi mu ak ba mais dafa waroon que euh, Sonko bi avec second essayer c'est à la tête du parti. Hmm. pour mener aller à la conquête non seulement de la présidentielle mais des législatives le monde le coalition bi hmm. pour donner le la. pour le c'est parti pour le bopam. donc gain mom le mom en tant que Sonko parce que Diomaye loo ci mënti dégg rek kenn woteel Sonko xëy na Sonko moo ko joxoon ne ñun Diomaye la ñu woteel wala moom la Sénégal fal mhm. donc à part de ce moment da ngay jàpp ne il fallait mu construire benn nouvelle entité beneen façon moo tax ñu ne ñoom dañuy dem mhm. ci seen bannière maanaam bannière Pastef mais waxuñu ne duñu ànd ak nit waaw loolu bannière la bannière Pastef maintenant am na ay conséquences yu si commencé am mooy euh, ñu jàpp ay kilifa si ñoom ñu jàpp ne ñom jàppale ñu won Pastef coalition jomay la ñu jàppale woon ngi tudd légui sax le 6 par exemple maa ngi gis ku mel tam maître Moussa Diop donte amna ci ñom tam ño xamné ñi ngi def ay communiqué gis naa léegi Mimi Touré gis naa ay dëmbooj Mary Teuw Niane euh, gis naa sax ku melni ne Malick Gakou bokk doon seen coalition bi ñom ñep nee nañ d'accord nañ jàppale jomay euh, ak Ousmane Sonko ngir ñu am majorité à l'Assemblée nationale maintenant lolu est-ce que euh, si sa xalaat si jangatu politique c'est pas trop risqué nga yob coalition yóbbu président euh, mo gagné après nga jël sa bannière parti pour bu élection législative. xam nga dañuy xam nga homme politique hmm. sérieux xam nga boo diriger parti nek candidat à l'élection présidentielle. Hmm. fi bo si ñu ak Sonko pour majorité déedéet Sonko ak pour majorité réalité ak pour majorité.

d' accord